bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wassalaam ala man ursila rahmatan lilaalamin sayidi alxalqi ajmain sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina abilqasim almustafa muhammad wa ala ahli baytihi alladina ixtaarahum allahu wastafaahum wa jacalahum qudwatan wa uswatan lilaalamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokkoritur rajo Mozdahir FM 93.2 di kaddu njabootu Yonent bi di jubi fii ci complex Imam Ali alayhi salaam Géejawaay wala Zac Mbao Dakar waaye Zahra FM 93.8 ci Kolda ak li ko wër leen di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye ñu ngi jël nuyu beeg ziar bi yëpp nag ak ndokkel gi di ko teg ci loxol Mawlana Chérif Mohamed Ali Haydara boole ñu tegal ci loxol imaamuna jafar ibn Muhammad as-Saadiq salawatullahi wasalaamuhu alayhi di ko jaale jullit yëpp itam nag ci googu nga xam ne moom la ñuy fàttaleku ñaar fukki fan ak juróom ci weeru shawal ci weeru korite ñu dellu si waat ak yéen nag ci sunu bind bi nga xam ne moom la ñu dooroon ak yéen ci wàllu julli ndax comme niñ koy waxee toujours jamono bu nekk di ko fàttaliwaat sunu bopp di ko fàttali mooy ne sunu borom subhanahu wa dafa am fum ñu ju lum ñu bëggal dañu wan nañu lépp lu ñu am lu nekk ngërëmal sunu borom moo ko gën ci ñin wa ridwanullahi wa ridwanun min allahi akbar ba foofa dong nag foofa la ñu yàlla nattal tax bam ñu tegalee nattalee foofa nag bëgg ñi dem fa o bëggal ñu teraanga adduna ak njëggalal àllaaxira bu ànd ak texe mu ju ñu ko nit rabbana atina fi dunya xasanatan waaye wa fil axirati itam xasana waaw rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasana bu yàlla lim ñu namal lum ñu mën a lu ñu mën a def fu ñu mën a jaarale lum mën a wax lu nekk pour nun la pour sunu fii jak gën mu jël nag ay moyens teg ci sunu kanam xam ne bu ñu ko defee gannaaw comme dañee sas nañu fexe leen fii mu baax lu fi yàqu yéna lu fi baax sama ngëneel la sama yërmande la maa leen teg ci yoon defar nu ngeen defar leen ba ngeen mën a baax jox leen lu tax ngeen mën a baax waaye lu fi yàqu bon yéna ah, bu dee zaaral fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat ay dinaas bu ko yooyu nga xam ne moyens yi moom la ñu jox ba ca gën a mag ci li ñu tuddee ay jumtukaay yu ñu mën a téye ba yegg ci teraanga jooju nga xam ne mooy ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala ak texe yoo xam ne moom kenn du ko liggéey dañ koy mérito waaye nag da ngay jaar ci yoon wa pour mérito ko ba ca gën a rëy ci jumtukaay yi mu jox mooy julli mooy julli moo tax ba lépp julli rek ay junji la yoo xam ne ay buum yu ni sànni la ngir ñi jàpp ca man cee xëcc ba yegg ci foofu nga xam ne moom la ñu nattal te mooy ngërëmal sunu borom ak texe jaamu yàlla yëpp noonu la rawatina nag julli gi nga xam ne dañ daa daa taqoog ñin ñii ko def lu mu néew néew juróomi yoon ci bis bi lépp lum ca def lu nekk lum ci junj di ñu loolu buñ ko xeloo di seetlu lam ñi wax julli gu nekk ñi jéem caa fexe ba am ca dara loo xam ne dana yokk ca la ñu amoon buñ ko defee léegi te rek suñu mbir dana baax bu boobaa inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkari googu mu doon wax julli day tax ba du ngeen def lu ñu tere lu yoon tere wala lu lu jomb bu dee loolu nekk lu xam ne lu ama am solo la ci lañ ñëwoon nag ba ci sunu dajee bi wees di ñe juróom fukkeelu ak juróom ñu yeggoon ci li ñu tuddee ash-shahaada ak at-taslim shahaad wala at-tashahud boog waxoon nañ ko tashahud dëgg-dëgg ci njàngaleem ahlul bayti en tout cas moom mooy indi ñaari baati seede yi an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa muhammad mooy taaya dee dëgg am na yuñ koy rafetalee nag moo xam ci njëlbeen la wala ci ci ci mujj ay taaya bi moom mooy loolu ñu xoon ne bu njëkk bi waaw mooy kuy dem audience ashadu an laa ilaaha gi nga wax ci noo dëgg ak ci li xam nga da ngay mel ni kuy dem audience simmiku sangu soolu xeeñu deferu pour sóobu nag ci yoon bi ba demee ba ci génn nag ashadu an goobu nga xam ne ngay wax ci taaya ba mooy ba nga deferoo ba pare nag nuur ci nekkuk sunu borom subhanahu wa taala dugg ci ay xewalam génn nag pour loolu nga xam ne moom nga génni nga fexe ba jaam yi kenn du ci manqué ñëpp da nga leen ko ñamal ndax amato sañ-sañ ba waaw di nga yore moom moo ko amatoo sañ sañ téye ko ba ñaari ashhadu an laa ilaaha illallah bokkuñu bee deferu la bii defere la ak la nga xam ne yépp moo ci nekk ci ay yoo xam ne biñ ko xasee ba wax nag daa am loo xam ne dootuñu ko sañ bon la ciy tegu rek moom mooy at taslim taslim ga ba ci jiitu ci maaniya wala bokk na ci maaniya boobu mooy jébbal sa bopp sa borom subhanahu wa ba nga jëfoon ci sujjóot ba nga xam ne at taslim booba sujjóot booba mooy mooy lu tub te nangu ko jël si lépp jox suñu borom subhanahu wa taala jeexal sa bopp jeexalal sa du gis sa bopp ko defee xuruur rëy rëylu beew euh, yëkkatiku sa bopp tagg sa nangam ak nangam yooyu yëpp day daal di jeex ko defee nga daal di dootoo yëgal yëg ludul jaam laa boo xam ni abdul miskinun mustakinun daifun zalilun xaqirun ñàkk solo bon lu ma lu ma am lu nekk rek damay koy jël jébbal ko sunu borom subhaanahu wa lu may def itam ngir moom la lu may bàyyi itam ngir moom la waaw boobaa nag jàmm rek nag waaw rek bu dëggoo jàmm la ñuy am waaye bu dëggoo itam jàmm la ñuy yéene nit ñi jàmm la ñuy yéene nit lépp luy indi fitna bu bon lépp luy indi eh, jafe-jafe lépp luy indi lore duutuñ ci dugg bu mukk nag laa darara wala diraar laa darara wala diraar al muslimu man salima al muslimuuna julit mooy ki nga xam ne julit yi dañoo mucc ci min yadihi wa lisaanihi kattanam ak làmmiñam waaw kattan ci le pouvoir ak boo mën a yore am moo xam E, e, e, effectif la wala d'influence la maanaam boo xam ne dañ koy doxal wala boo xam ne da ngay fexe ba xiir nit ñi ñu jëm ci wala kattan loo xam ne dañ koy wax wala kattan loo xam ne dañ koy bind wala dañ koy junj ak lu mën a doon rek min de di lis wali saani dootuñ ko def mukk nag waaw lépp luy indi jafe-jafe ci nit ñi ak lore di nit ñi buñ ne asalaam googu sañatuñ koy dugg sañatuñ koy def waaw bu dee dëgg la ci ñun wa tax tasliman ba nga jébbalee sa bopp lépp nag sa borom jéeg jàmmal nit ci lépp nag dox nañ ko fi ay xadis yu sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ak njaboot ga di wax naan waaw yàlla rëbb na ki nga xam ne dañ koy ormal ndax dañ koo ragal waaw kenn ñi moo ko wax dëgg ndax ragal aw ayam xam aw ay kattanam la wala ay làmmiñam la ko doy loolu itam nekk loo xam ne lu jërë baqal la ak la nga xam ne yëpp waxoon nañ ko ci ci ci taslim boobu ko dee nag bu ñu sëlmalee boon fi ne jeexal nañu sujjóot nañu sujjóot bi nga xam ne mooy joxe sa lépp doo dese dara sujjóot nañ sujjóot bi nga xam ne sunu borom rek moom la ñuy xool ci sunu bëtu xol duñ ko gis duñ ci booleeg lenn la sharika sujjóot nañu sujjóot boo xam ne yëg nañ ne sunu borom moom moom lépp moo am lépp moo man lépp moo ñu bind moo ñi fi bàyyi ñuy dund moo ñu fi jilee bisab keroog moo ñuy dekkal atte ñi yàlla nañ boole ñi nga xamante ne dina leen xoolee bëtu yërmandeem sujjóot nañu ba nga xamante ne poñetam adduna bii nga xam ne ab mbalit la moo xam ne ab eh, médd la moo xam ne Eh, yóbbal lañ ca waroon a def lu tolloog lañu soxla lu tolloog lañu soxla waaw loo xam ne danga ko fi indiwoo ko fi woon tey nga ko yore bu yàggee nga bàyyi ko fi wala dootul la saf dara da nga cay jël lu tolloog la nga soxla la ca des nga jox ko jaamu yàlla yi bu ko dee ñi daal di ñëw nag seedeel ko sunu borom nag daal di dugg génn ba xel nag jëriñ nit ñi boo duggee nag da génn pour ba xel jëriñ nit ñi ko dee nga jëriñ leen jàmmal leen te bañ leen a lor waaw boo ci génnee nag ñëpp nga yéene leen jàmm ñëpp nga xam ne yaa ngi ma yem ay jaamu yàlla ngeen ñëpp nga xam ne da ngay euh, ñaaw njorte sax ci sa bopp est ce que man la ma waroon a def def naa ko waaye ñëpp itam da ngay rafet njorte ci ñoom jàpp ne ñoo la gën ndax ko imaam Ali alayhi salaam waxe woon mu ne man di buñ may tagg damay wax ne ah indi li ngeen a wax nii wóor dama ne maa leen gën a xam suma bopp. te xam naa ne man yàllaa ma gën a xam sama bopp bon leen leen yal nañu yàlla jéggal li nga xam ne xamu leen ko ci man te yëkkati sama martaba fu raw fi ngeen ma foog ko dee nag bu ñu sëlmalee nag bokk na ca li ñu tuddee at taakibaat ya nga xam ne danañu ko cay toftal waaw moo tax loolu itam lu am solo la waaw julli rek ba pare ne bëreet daal di aw yoon déedéet li du noonu sujjoot dañ cay ñaan surtout sujjoot bu mujj ba wax nañ ko ñaan ca te bu ca ñaan alquran waaw dañ cay ñaan waaye duñ ca ñaan ñaani alquran ci sujjoot ba boo paree ba pare ci julli ga comme bi moom foofu la gën a eh, nit ki di gën a jege sunu borom subhanahu wa taala wasjud waqtarib nga ñaan ba pare boo fa bay ñëw taxaw balaa ngay def lenn balaa ngay jàllale lenn situation boobu nga xam ne ci nga génnee nga xam ne raxasu nga ba mu set wécc parfum nga deferu nga ba mu ne jàgg taxaw ci kanam su man suñu borom subhanahu wa taala bu ko neenal bu ko neenal bu ko neenal bu defee nga daal di sujjoot nga daal di eh, ñaan daldi di ñaan foofu dañ fay ñaan dañ fay zikri suñu borom subhanahu wa comme ni ko sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali waxee mu ne booy julli da ngay julli mel ni julli ji mooy sa mujjug julli na nga yëg ne na nga bi ak tiitaange ak ñeewente ak rus goo rus ne mën naa am man li ma def nii na ma ko waroon a defee defi ma ko bul bàkku wanel ne man waaw li ma ko defee nii xëy na man li ma ko defee nii baaxul waaw rus naa ko tax boo demee ci mafatihul jinaan ba mu ngi koy wax in fi fiha xalalun aw naqsun min rukuuiha aw sujuudiha fala tuwaaqisni wa tafaddal alayhi bil qubuli wal kufraan waaw bu dee am na lu ci manqué ci sujuud ya ak ruku ya bu ma ko jàppee jéggal ma ko rek waaw jéggal ma nangul ma ko mu ne moo tax mu ne ci mu ne na nga ragal sunu borom subhaanahu wa taala ñàkk a nangu si julli gi na nga ragal say bakkaar yu bare ak gis sa bopp na tax ba nga xamante ne sunu borom subhaanahu wa taala du la ko nangul nga xam yu biti wala yu biir nga na nga ragal tiit ne mën naay am suma julli gi yàlla da koy laxas daal dama ko sànni ci sama kanam ne ma jëlal comme taxu moon nga da ko def wala dugal nga ci lu dul man waaye ragal li tam nag ñeme yaakaar li tam nag mu nangul la ko ndég baaxam ndég ndég Eh, eh, baaxam ndeg eh, karam te tera terangam wala tabem bu ko defee boo ko defee noonu danañu am julli xaashiin yi ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla alladina hum ala salatihim yuxaafizuuna yi nga xam ne dañuy war sa sa sa moanteeg chartay biir yag yu biti ya waaye itam nga xam ne itam sëlmal ci julli du tax ñi génn ci julli ga ndax la julli digle lépp lu ñuy def lu nekk da cay feeñ ci ñoom ala salaatihim daa imun di yàlla ak sunu borom ndax dañ koy gis ci jamono bu nekk ndax xam nañ ne wanaanu aqrabu ilayhi min hablil warid moo ñu gën a jege sunu bu bu bu ma xol moo tax julli julli asalaamaaleykum taxul ñu génn ci ndax boobaa nag la ñuy commencé lañ doon jëfandikoo ci julli ga muy ñu ko appliquer maanaam lañ doon wax ci julli ga ci bu ñu béykoo ci julli ga nag lañ koy daal di jëfandikoo suñu digganteeg ñin suñu digganteeg suñu borom ak suñu digganteeg suñu morom bu ko defee loolu itam nekk lu jar a ba xel moo tax bokk na ci la ñuy def pour bañ a bokk ci ñi nga xam ne julli ga dañ koy julli rek waaye yokkut leen wàññiwut leen wala yokkut leen te mu leen di wàññi sax léeg-léeg ndax ku yokkut wàññeeku comme ni sang bi waxoon rubba musallin talanuhu assalaat bari na kuy julli julli di ko rëbb buñ ko bañ a def lépp lu ñuy def imaam Xumayni ridwanullahi alayhi da koy wax waaw lépp luñ ciy def nañu xelu loola la junj bu dee yi daa tàmbali julli ga bu dee ci biir julli gi la bu dee la ñuy jàng ci alquran nee na sax la ñuy jàng ci alquran même bu dee fatiha la lañ mokkal akaw saar nañ fexe ba xam la muy firi ca baat ya bu ko defee bis bu nekk ñiy gën a xóotal firi ma da ko gën a xelu waaye da ko gën a jëfandikoo itam jamono bu nekk waaw bu ko nekk lu xam ne lu jar a ba xel la ko defee bokk na ci la ñuy def même bu fekkee ne ci sharia nekkul ay farata waaye li ci nekk ci njëriñ ëpp na ay ba bokk na ci takbiraat ya pare nga ne allahu akbar yëkkati sa loxo ba ca kaw allahu akbar ci sa wàllu càmmooy allahu akbar ci sa wàllu ndeyjoor ba dee wan sunu borom subhanahu wa ne ko lii ma doon wax yëg naa ne fu ma mën a dikkee seytaane moom nga xam ne waxoon na ne la aqudanna lahum siraataka almustaqim summa la atiyannahum min bayni aydihim min xalfihim wa an shamaa'ili wa an aymaani wa an shamaa'ilihim wala tajidu aksarahum shakirin man weddi naa ko wan naa ko ne ko kabar yii ma kabar ni foo ma mën a dikkee fu nekk man yëg gi may yëgal sama bopp sama bak sama sama xol ne suñu borom subhanahu wa taala mooy aji màgg gi yëg naa ne lu dul moom rek màggut moo tax mënuma yóbbu fenn ba yow dem sa yoon ba dem sa yoon dara nga ma mënalut waaw jógal jógal fi bu ko defee loolu nekk lu xam ne lu am solo la ko dee da tax ba ñu tàqale ko suñu borom subhanahu wa taala danañu ubbil bunti malakut yi yóbbu ñu ci martaba yu xam ne dana tax lañ fay gis ci sunu bëtub xol dana tax ba nga xam ne adduna ji nga xam ne lu baree bare jaru ko lu dul yóbbaloo ko bis fa nga xamante ne wa inna daaral axirata la yal xayawaan jaru ko waaw waaw ko loolu tam nekk lu xam ne lu am solo la duna moomu nga xam ne ab medd la ci waxin seytaane moomu nga xam ne lu la yàqal rek lay bëgg te ci suñu bànneexu bakkan ci lay fëkk sukkandiku bu ko defee itam kooku itam ñu bar ko baqal la nga xam ne duñu ko def bari na yuñ cey def bokk na ci yi ci gën a am solo ci taqibaat yooyu mooy li ñu tuddee tasbiatu zahra mooy li ñuy tuddee euh, tasab tasab yaakaar naa moom li ñu koy tuddee tasab tasab mooy bëri na waaye bu dee ci ahlul bayti ñoom allahu akbar ga la ñuy jiital allahu akbar la ñuy def trente quatre fois alhamdulilahi trente trois fois euh, euh, subhanallahi trente trois fois bëri na lu bare bare bare loo xam ne xam naa ne loolu moom du ko kenn du ko mën a cof day ñëw bis bu dee poog dogal la borom bi ñëwal ko la ci nekk ci njëriñ ëpp na àpp waaw bëri na lool tasbiyatu zahra ndax sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa moo ko joxoon zahra salaamullahi alayha eh, ci ay circonstance yu wuute bokk na ci sax boy tëdd ak la ci nekk ci njëriñ moo tax tasbihaat bobu lu nit ki yàkkamti yàkkamti gannaaw bu mu jullee na ko def waaw allahu akbar 34 am na ñu wax nag neneen subhaanallahi alhamdulilahi wallahu akbar bu nekk 33 fois am na ñu koy wax mais bu dee ci njàngale alul bayti 34 fois allahu akbar subha alhamdulilahi 33 subhaanallahi 33 eh, muy téeméer bu ko defee loolu nekk lu xam ne moom itam jar nay baqal doomu aadama bi comme ni ko ni ko jàngee ci benn ci axbaar yi nee na suñu borom subhaanahu wa taala bo doomu aadama bi buy julli loolu yëpp mbokk yi nañu fexe ba bu ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy wax na an salaatihim saahuun waaw ñoom dañuy sëgg ka sigi rek aka wax waaye loolu duñ ko xelu duñ ko seetlu duñ ca jàngee duñ ci jëlee itam yóbbal boo xamante ne dana leen mën a dimbale ci seen doxinu adduna nga xam ne dinañ ci mën a defer deferoo ci nee na bu jàmm bu taxawee ci kanam suñu borom subhanahu wa taala yàlla day dindi mbooleem luy xijaab wala boog day dindi xijaab yi nga xam ne moo jaaroon diggante ak moom ko day mu génn karkaasam bi di xool suñu borom subhanahu wa taala ci bëtu xol waaw yàlla nag day yónni ay malaaka yu bare bare nag kenn ku nekk nag ñëw daal di ñëw Euh, commencé di def fu mu toll muy indi ñuy def la mu la la mel noonu bu dee ñuy rukkoo bu dee day sujjoot ñu boole ko ñu indi malaaka yoo xam ne sujjoot rek la ñuy def bu dee dañuy ruk day ñu boole ñu lu fu mu toll rek ñu bind yàlla subhaanahu wa taala yónni malaaka yoo xam ne loolu rek la ñuy def ni moom moo tax moom bu baax moo gën malaayika ndax malaayika loolu dong nga lay def lam ko dañ ko def loo noonu bu dee rukkoo rukkoo rek bu dee sujjoot sujjoot rek bu dee taxaw taxaw rek te moom yëpp da koy boole waale si julli moo tax julli lu ko mel amut bu ko defee euh, loolu nekk loo xam ne lu jël bakkel la bu mu def tasbiatu zahra yëkkati ay yoxoom wala eh, def yooyu nga xam ne gannaaw bu mu yëkkati ay loxoom def ñetti kabari mu daal di def tasbihatu zahra man na koy jiital sax si yeneen ñaan yi nga xam ne moom itam bare na yuñ koy def waaw ni nga waxee léegi bu ko defee yaa suñu borom subhanahu wa taala bind ay mar malaayika yoo xam ne ku ne la muy def lay def wa ma minna illa lahu maqaamun mahmud kenn ku ne lam nekk ci lay nekk yow nga def ko bu noppi ko ca dem defi leneen bon yow yaa ko ëpp daraja bu ko defee loolu mbokk yi yooyu dafa am solo nga ñaan fa ay bañu tudd sax ay ñaan yu bare yoo xam ne euh, bare na inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nga ne allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad lu mu ndaw ndaw ñetti yoon bokk na ci qul wallahu ahad fukki yoon ak ñaar bokk na ca e, yeneen ñaan yi nga xam ne julli gu nekk am na ñaan goo xamante ne moom moo ko jagoo loolu yëpp boo duggee ci mafatixul jinaan da nga ci gis lu bare fa jamono ci bunt ba fa ñu tuddee taaqibaat ya julli gu nekk am na taaqibam ko dee boo mënta def lépp itam nga seet ca loo def te sax ca ndax julli googu kat lépp ci la topp lépp julli lépp doomu aadama ci loolu la topp bu ko defee ne loolu itam nekk loo xam ne ñaan yooyu nga xam ne moom ngay def muy taaxibaat yooyu moom itam nekk loo xam ne ëpp nay def ba tax yàkkamti gi itam léeg-léeg du ko jar léegi du ko jar bon comme ni nga ko waxee ñaan yi bare nañu bu ko defee nit ki itam jamono bi muy ñaan bokk na ci li muy yëg commencé ca takk biiraat yooyu yëkkati sa ñaari loxo ba ci ci des nit ki kay ñaan bokk na ci la nga xam ne moom lay yëg muy nangu ne man awma ndax kuy ñaan ku nekk nangu nga ne man awma waaye ku ñaan ku nekk itam nangu nga ne ka ngay ñaan ndeke moom moo moo am loolu nag amul lu ko mel moo tax addu'a muxul ibada ñaan mooy yuur julli mooy yuur jàmm yàlla wala huwal ibada sax am na yoo xam ne noonu lañ noonu la ñu wax mooy mooy jàmm ndax nangu li nga doon nangul sunu borom subhanahu wa taala la mu doon loolu nangu la ixtilaaf la reconnaissance la moo tax loolu itam nekk loo xam ne lu ñu bara ba xel la ba tax ñaan yooyu comme ni ñu ko waxee jar na ay ba xel bu ko defee seetlu ga ngay seetlu ci biir julli gi itam noonu ngay seetloo itam ñaan ya ak la ngay wax bu ko defee lépp loo ciy def lu nekk nga xam fexe ba xam texte ba la muy wax ci firim kaw ma bu defee loola nga di ko jéem a jëmbal di ci am solo répété loo xam ne xamuñu ko xëy na dana baax waaye bu doon na mu doon na gën bu fekkente ne la ñuy wax xam nañ ko te def ko nag mu da ab téere boo xam ne dañ koy pare bis bu nekk lu nekk ak lu ñu tudd lu nekk ñu teg ci suñu kanam jéem koo jëmbal moo tax sang bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ci benn xadis mu wax ne jaam bi dana juli nee na ko bindal lu dul genn wàll ga wala sax ñu bindal ko un tiers ba mooy boo ko xaajee ñetti xaaj benn ba wala boo ko xaajee ñeenti xaaj benn ba wala boo ko xaajee ba wala boo ko xaajee juróom benni xaaj benn ba wala boo ko fukki xaaj benn ba nee na julli booy julli lala ca yàlla da bindal innama yuktabu li abdin wala lil abdi min salaatihi ma akala minha la nga xam ne sa xel teewlu na ko moom lañ lay moom lañ lay bindal loolu nag lajey dimbali nit ki mooy la mu def mu xam ko te da ko ba xel ko dee yooyu yëpp nag ci julli ga ci génn bi waxoon nañ ko ca ni ñu tuddee at tairul xayaal yi waaw li tax ba julli gi bu génnee nga dugg xëccaat ko mu ñëw waaye ci ñaani itam loolu da cay am mooy la ngay ñaan sax na nga xam lum la loolu dem nekk loo xam ne sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi di wax naan nee na kenn du mucc ci sama jaami ludul la ma farataal ca moom bu ko defee taqibaat yooyu comme ni nga ko waxee bare na lool waaye bokk na ci yi ci gën ba ci gën a am solo mooy tasbihatu zahra ndax nañ ne loolu bu dëppog dogal ak borom bi dinañ ci ñëwaat spécial ndax dafa xaw a yaatu te am solo lool nag waaye rawatina nag taaxibaat yooyu nag fu muy gën a amee solo nag muy julik suba ak julik tàkkusaan waaw boo ca pare foofu moom langa nga mën lu nekk na nga ko ci gën a góorgóorlu wax nañ ko rek léegi ñëpp bokk nañ ko xam ne boo jullee suba ba pare waaw boo suba ba pare bëgg nañu bu dee du liggéey la tënk wala leneen moo la tënk nga bañ faa nelawaat ba jant bi fenk ba au minimum mu am vingt minutes ci kaw nga door a jóg wala nga door a bu fekkee nelaw lay am nga dellu nelawaat. bu ñuy bu jant bi di soy itam foofu bëgguñu kenn ku fa nelaw am na moom itam ay eh, yu ay ngaañ yoo xam ne mën na koo indi ci sunu dund fii ak suñu dund feneen bu ko defee loolu nekk loo xam ne lu jar a baxel la moo tax julli moomu nag mbokk yi bokk na ci nañ cey deferoo moom julli suñu borom subhanahu wa taala comme ni mu ko indee mu nekk loo xamante ne luy répété wu la luy lu ñuy toppaat la jamono bu nekk wax nañ ni ndaw ndaw ndaw juróomi yoon danañ ko julli ci bis bi mooy julli farata yi bu dee ci lañ yem ok nag naafila toppaat boobu bu fekkee ne heure bu ñu ko toppaatee am lu rogaatal même bu dee genn wàllu point la bu boobaa dana am ak yokkute guñ ci gisee. buñ ci amee bu yëkkati sa loxo ne allahu akbar yàlla rek moo màgg wala bu bu fekkee suñu tolluwaay mu ngi toll ci yàlla gën a màgg bon dañ koy comparer ak lu ñu bëgg a def wala lu ñu nar a def wala lu nekk ci suñu kanam wala lu ñu bëgg waaw bu boobaa da nga koy comparer yàlla gën a màgg nga bàyyi bon la la gën a néew ak te ñëw ci li nga xam ne moo ko ëpp màgg da nga dem ba xam ne nag loola ndeke màggut nga ne allahu akbar yàlla rek a màgg loolu buñ ko def ak la nga xam ne moo ci topp yëpp yaakaar naa ne buñ ko defee ay ab diir mën naa am danañu yokku dara moo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu jox misaal ci aaya boobu nga xam ne moo nekk ci suratul fathi ci jeexantalu ba inna fatahna laka fathan mubinan mu ne muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwanan siimaahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليقيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne muhammadun rasulullah mooy yonent bi nañ ko ci batay amul ak kenn du juum du jaawatle du def lu wuuteeg li sunu borom bëgg du def du ñu digal lu ñu lor du ñu tere mukk loo xamante ne sunu njëriñ ngi ca moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali moo tax sunu borom xool ko ba set set setantal ko ne wa ma ataakum rasulu faqzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ndax wa innaka la ala xuluqin azim lu mu leen wax ne leen jël leen lu leen tere bàyyi leen ndax jikko bu doon ab néeg moom moo nekk ci kaw moo mooy toit ba muy xëdd moom sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali amul droit manu ko jëmm jee ko manu la mu xam mayu ko ko sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali walladina maahu commencé nag di lim ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom boobu dinañ ci taxaw tuuti ñoom de lam leen melale mooy ashidda alal kuffar benn ruhama baynahum ñaar rukkaan muy ñett sujjadan muy ñeent wa yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan muy muy juróom lam leen di jural mooy simaahum fi wujuhihim min athari sujud ko bon loolu nuñ ci mbokk yi bu taxawee tuuti ci walladina maahu ak ñi ànd ak moom loolu bu ñu waxee d'abord ne sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi li ko yàlla yónni pour adduna bi yëpp la li ko fi lim ko li mu ñëw mooy ludd moom rek dafa war a raaf te dana ko defi nag ba tax bu jiwee aaya ba ko jiitu wallazi arsala rasulahu bil huda wa diinil xaq lu tax li yutiru ala diini kulli wa kafa billahi shahida lim leen indil njub la moo xam ne ludul moom loolu da ko war a mëdd moo tax dana masa am moom lañ ñu santoon xëy na ñu manqué ay dana masa am ndax imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif bu ñëwee dana ko dana ko dana ko taxawal waaw bare nag mu ci wax loolu mooy ci ay lay maanaam ci ay argument wax nañ lu ci bare ay li tóor moom mooy bu imaamul Mahdi ñëwee ajallahu faraj wa sharif dana ko indi dana ko indi bon muhammadun rasulullah bu walladina maahu ñu ne maaya gi est ce que maaya jëmm la kese wala maaya geneen la maanaam ànd ak moom la ci jëmm wala ànd ak moom la ci eh, eh, topp ko di déglu ndigalam di bàyyi ay tereem ndax mu bu fekkee ne lañ ci jublu saaba yi nga xam ne ñoo doon dund ak moom foofu problème dana am ndax bu ñu demee ci saaba yi suxba sax li ñu tuddee ba boo demee ci li ñu tuddee usuli yoone yi ak li ñu tuddee almuhaddis yoone yi dañ caa wuute usuli yoone yi ñoom dañu gis euh, ne nekk saaba mooy koo xam ne da ngay ànd ak bi tuub nangul ko topp ko gëm ko yàgg ak moom te la nga nekk génnoo ca ba faatu ca ba demee ci muhaddisuuna yi nag bare na lu ñu ci wax ñoom itam dañ ne am na sax ñu dem ba ne même bu dee da nga gis sax da nga tuub gis ko benn yoon wala sax gisoo ko waaye tuub nga jamono boo xam ne moom mu ngi dund bu boobaa yow euh, yaa nga bokk ci saaba ya wax ji bare na waaye bu ñu xoolaatee ci xadis yi danañu laaj kan la sang bi di wax muhammadin kan lañu la ñuy wax est ce que ma maaya googu maaya euh, ànd ak moom la ci maanawiyan nangul ko topp ko gëm ko fonk ko dund ca dee wala ànd ak moom ci jëmm la bu ñu delloo ci hadis yi dañu dellu ci dañ ciy tudd tuuti rek loo xam ne danañu mën naa tax ñi laajte kan mooy saaba boo demee ci benn hadis boo xam ne muslim indi na ko buxaari yu indi ko ñoom jëlee ko ci abu hurayrata mu ne dafa am aw coow lu masa am ci diggante Xaalid ibnu Walid ak Abdurahman ibnu Awf ku ne xam na ne lu ñooñu buñ ne dañu xool ni ay saaba lañ ñi rek ay saaba lañ boo demee itam Ahmed indi na ko ci masnadam jëlee ko ci Anas ibnu Malik mu ne diggante Xaalid ak Abdurahman ibnu Awf dox da wax dafa jaaroon wax ja yéen ko am na ñu wax ne Xaalid ibnu Walid ki nga xam ne nee nañu moo mujj tuub da ko ne ko yéen nag léegi da ngeen ñiy diir mbagg nag ndig li ngeen ñi jiitu njëkk yee gëm mu ne wax ji dem ba foor ba nee nañu Xaalid daal di ko sabba sabba da firi saaga wala boog ŋàññ wala boog wax lu bon ñu ne wax ja daal de ak ci sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mu ne bàyyi leen samay sahaaba gën naa ci ki nga xam ne sama bakkan a ngi ci loxoom ne bu ngeen dépensé woon lu tollu ni jëbalu uhud ci euh, or man leen a jot mukk li nga xam ne moom la samay sahaaba liggéey waaw léegi nag ñaar ñi muy wax muy Xaalid ibn Walid ñëpp ay jullit la ñu ngi toog Abdurahmaan ibn Awf ñu ngi fi bon bu waxee wax ji bon kana sahaaba ñoom ñaar kenn kenn da cee nekkul saaba te dañ ñun yëguñu ko bu dee ñam ñaar ñëpp ci ñun suñu gisin ay saaba lañu bon am saaba am na beneen firi bu bokkul ak boobu moo tax saaba léeg-léeg kenn da cee raba xel bu leen sàgg kenn ci sama saaba yi laa tasubbu ahadan min asaabi ndax kenn ci yéen bu dépensé woon comme ni nga ko waxee jëbbalu Uhud ci or mun di jot muddab li nga xamante ne mooy kenn ci ñoom sama saaba yooyu te ñoom ñaar la ko doon wax bon kuy saaba ci ñoom ñaar ak ku ci dawul boo demee ci bani eh, xasootu bani mustala ci xibaar boo xam ne Buxaari yu indi na ko jëlee ko ci jaabir nee na dafa am aw coow lu amoon ci diggante muhajiruna yi ak ansaar kenn ci ñoom ba kenn ci muhajiruna yi ak ansaar ba kenn ko dóor morom ka waa ansaar ba bañ ko lóoree mu daal di yuuxu ne eh waaye yéen waa ansaar ñoo leen xeetali ma ñu bu mu waxee lool wax ji gudd na ba Omar ibn Khattab daal di wax ne ko sang bi ne ko bàyyi ma ma dagg bopp bi mu ne ko naa da ngaa bëgg nit ñi nettali ne Muhammad day rey ay saabaam te pourtant ñun ñëpp de ansaar ya kii yëpp de ñu nga foon boo demee ci xeex boobu ñuy tuddee Tabuk nga xam ne sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali daa demoon di xeex ak ñoom xeex ba xam nañ ko ñun ñëpp mu daal di gudd gudd na waaye ba ñu demee ñooñu waroon a xeexal daal di daw boo demee muslim indi na ko Ahmed indi ko bi ñu ñibbisi nag ba yegg ci béréb bu ñu tuddee Aqaba mu am benn place bu yaatu boo xamante ne ñëpp mën nañ fa jaar mu da aw xur mu am benn place boo xam ne nag bu sew la boo xamante ne jaaruwaay ba de risque la ndax daa sew ku fa daanu rek mu de problème yonent bi ne yéen ñëpp jaar leen ci biir xur wi bàyyi ma man ma jaar fii ci kaw boo demee di comme ni ko waxee noonu Ahmed ak Muslim ñoom ñëpp nettali nañu ko mu ne ba ñu demee loolu moom mu ànd ak Xusayfa Yamani ak Amar ibnu Yasir Tabari nettali na ko ci eh, taariqul rusul wal muluk alkaamilu fi taarix bu ibnu asir moom itam noonu la ko nettalee mu ne ba ñu fa demee nag am fukki saaba ak ñaar wala fukki saaba ak ñeent wute nañ ci riwaayaat yi yoo xamante ne ñoom dañu dem fexe ba de fi nga xam ne moom la sang bi waroon a jaar nga xam ne boo dee drapé tuuti rek daal di num num tuluti ñi daal taxaw fa pour tiital li nga xamante ne moom mooy eh, mbaam mi mu waroon wala daa gàtt gi mu wala daaba ji mu waroon waaye ko defee nag yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi yàlla yónni jibril mu yëgal ko ko ba noppi daal di def benn éclat mooy benn melax bu yaatu seen ñëpp daal di feeñ nee nañ sax sang bi laaj ne ko ah, xusayfa yamaan ne ko ndax xam nga leen mu ne ko déeréet waaye xammee naa seen fas yi nag wala seen gawar yi nga xam ne moom la ñu waroon mu daal di ko wax tur yëpp boo am na ay téere yoo xam ne indi nañu ñu ya bon moo tax sax ñu wax ne euh, histoire bi gudd na waaye sang muhammadin sallallahu alayhi wa dafa waxoon xuseyfa ne ko ñii nii nga xam ne mooy fukk ak ñaar yi ku ci dee bokk julli bu ma sama gannaaw bu bokk ci ñu koy julli waaw moo tax ñu ne Umar ibnul Xataab da daan wax wax ci ku faatu day xool ba xam day jëli xuseyfa ne ko ñëwal julli ko bu nangoo moo xam ne bokkut te bu nangoo moo xam ne bokk na ca ak la ca aju yëpp bon wóor na ne bon saaba yi ñii am na si ñoo xam ne yeneen problème la ñu boo demee ci alquran sax loolu la ñu wax wa man xawlakum min al arabi munafiqun wa min ahli al madinati maradu ala nifaq kon bu fekkee ne ku mën a doon rek ci ñoom comme niñ koy faral di waxee ci yenn xadis ya wala len li ñu tuddee xadis boog naan ñoom ñëpp ay biddiw lañ ku ngeen ci roy roy biddiw sax dee duut yëpp mooy gindi nag di jaam nag yu biddiw yoo xam ne boo ko xoolee xam ne biddiw bale day gindi place nangam la nekk wala fii mooy penk wala sow waaye du yëpp nag boo demee ci xadisul xawdu itam dañ ca mën a xamee laajee kan mooy saaba est ce que mooy ki nga xam ne gëm na rek wala mooy ki nga xam ne moo gëm sellal te des ca loola ba faatu ca boo demee ci xadisul xawdu bi nga xam ne Buxaari indi na ko muslim indi ko ak yeneen i téere yëpp sunu sang Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi dafa wax ne la yaridanna alayya na unaasun wala naasun min ashaabi alxawda xata araftuhum ixtalajoo duuni fa aqulu ashaabi fa yu fa wala fa yaqulu la tadri ma axdasu comme ni ko Buxaari yu indi ñu ne yow yowmal qiyaam danaa ñëw ci xawdu bi mooy mbalka mi nga xam ne ku ca naan basin bi ku ca naan dootoo mar mu ne ay nit ñëw yu bokk ci sama saaba ma xam leen ñu xam leen ma yëkkati sama loxo ne nañ ñëw nañ ñëw ñu ne am ñu jaar sama diggante ñoom bu ko defee mu ne ñii de bàyyi leen samay saxaaba la ñu ne kanaa xamoon la ñu sos sa gannaaw kon ñun ñu nga foon saxaaba la wax de waxut taabi'uuna yi wala ñeneen ak ñeneen saxaaba yi la wax loolu boo demee moom itam hadis yi ci ñëw bare na lool boo demee ci léegi am na ci Buxaari boo xam ne Zumra la ko tuddee ba leen ñi xam leen ana faratukum alal xawd wala wala wala unaazi'anna aqwaman thumma la uglib uglibanna fa aqulu ya rabbi asxaabi asxaabi fa yuqaalu innaka la tadri ma ahdasu ba'dak ak yeneen ñi nga xam ne yëpp moo si ñëw bon li ma bëgg a wax foofu rek mooy est-ce que maaya bi maaya jëmm la wala maaya bi maaya ànd ak moom la en tout cas liñ gis ci hadis yi lam ñuy niru ak mooy lam ñuy lam ñuy tegtal ak aada aaya boobu ma wax ci suratul baraa léegi lam ñuy tegtal mooy booy naafiq moom amoon na hmm. saaba yi am na ci ñoo xamante ne ñii dañoo gëm gëmm ñii dañoo gëm ndig ay intérêt ñii dañoo gëm ndig tiit nenn ñii dañoo gëm ngir bëgg ay martaba ñii dañoo gëm des te la nga xam ne moom lañ gëm moo tax ba ñu mel noonu gétt gu mel noonu nag nga xam ne lépp nga ca bëy yaa nga ca xar yaa nga ca till yaa nga ca xaj yaa nga ca eh, njàppaan yaa nga ca ak nangam ak nangam borom gitt ga yaakaaroo ma ne dana dem noonu rek bàyyi leen te du leen bàyyi koo ne moo leen di sàmm ko xàmmee la cay ñiy ñey raas ak ñey eh, gàmm ak ñey raas gilim di eh, di ma ayee bi buñ ko xoolee suñ borom subhanahu da ko wutal ay ay ay ashiddaau ala al kufar waaye ruhamaau baynahum dañuy tar ci kufar yi leen namal jàmm waaye seen diggante di yërmandi ñoomu neen yërmandi dañ leen di gis rukkaan ñi ruko waxoon nañ ci gannaaw ne ruko bokk na ci muy firi mooy di xool màggaay ak yàlla ci lu ne sujjadan jël sa bopp jox ko sunu borom subhanahu wa taala te lañ cey jublu nekkul wut daraja lu wut martaba lu wut aw tur lu wut sax wala safara léeg waaye yabtaquuna fadlan min allahi ridwanan ngëneelal yàlla ak njëm yërmandeem ak njéggalam moom lañ ciy wut ñooñu nag boo leen gisee siimaahum fi wujuuhihim min asari sujuud lu nekk wax nañ ko ci nag kanam gaal ak seen jéey ak seen nangam ak nangam waaye bokk na ca la ca euh, tafsirul amsal junj muy ñi nga xam ne seen jikko yee day feeñ ci lépp loo xamante ni dugg nañ ca bu ñu jëflanteeg yow si njullite da cay feeñ bu ñuy dox ci yoonu njullite dafay feeñ bu ñuy lépp lu ñuy def lu nekk rek seen njullite da ci feeñ lu tax min asari sujudi ndeg eh, eh, mandargam wala jeexitali sujud ba te mooy sujud comme ni nga ko waxee woon mooy jël sa lépp jox suñu borom subhaanahu wa taala jébbalu tuub te nangu ko fuñ la joxoñ nga def fuñ la tere nga bàyyi zalika masaluhum fi tawrat am na ñu meloon noonu ci jamono yonent yàlla Musa ak ñi ne ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo tase woon ak tawrat wa masaluhum fil injil yonent yàlla ak yéen jamono yonent yàlla eh, Isa ak ñi tolloo ak moom noonu nag bu ñu nañu lañ koy defee mooy kazarin axraja shat'ahu fa azarahu mooy kazarin genn gàncax goo xam ne daa am benn bouchon benn beneen bu ndaw bu sëqee ci moom jaar ci suuf boo xam ne day génn fa adarhu sa bu ko defee ngay ko jàpp di ko entretenir di ko defer di ko aar ba dara du ko lekk dara du ko jàpp du dëng du def nen loolu mooy si jik suñu jikko yi suñu doxalin yi ñi ko bis bu nekk ba mu taxaw nag ba nga xam ne ku ko gis ne ah bii gàncax day rafet na gàncax day rafet na loolu nag dañ koy dañ koy jëmbat buñ jàppee ne tey lay mel mu génn mu jeex du sotti buñ jàppee ne ndax ëllëg lay mel du sotti buñ jàppee ne mënuñu ko du sotti nan la ñuy def muy jikko ju nekk bis bu nekk nañu meloon tey comme ni ko imaam Ali waxee ci beneen xadis mooy nañu meloon tey ñu fexe ba suba gën ko gannaaw suba gën su euh, suba suñ tey gën démb ko day ñi ko dimbale fastaxlasa fastawa ala suqi yujibu suraa li yaqis bihimul kufar waada allahu alladina amanu wa amilu salihati minhum magfiratan di nga ko ni ko yàlla mujjee mu ne yàlla dig ne ñi nga xamante ne ñoo gëm wóolu yàlla ba làqu ci moom di def ay digalam bàyyi ay tereem yëg ko itam ne moom moom la duut leneen duut keneen ba jox ko suñu bopp lépp jébbalu tuub te nangu ko waaye loolu nag day am ne wa amilu salihat lu nekk ay théorie rek mais dañ koy boole ak pratique jëf waaye saalihaat nag mu def loo xam ne lu baax la sa digganteeg sa borom lu baax la ci sa digganteeg yow lu baax la sa digganteeg sa morom day jëriñe te du lor day defer te du yàq day musal ak muccile te du indi lenn loo xam ne day indi ay fitna ki ay musiba ñooñu nag lañ cay juum ci ay jëf minhum ay wa ajran azima yàlla da leen ko jéggal jëlaleel leen ko ba fay leen romb seeni njorta ndax ajran aziman la te la koy gën a la koy firndeel dëgg dëgg dëgg mooy sunu borom mooy ridwaan boobu ma waxoon yabtaxuuna leen min allahi ridwaanan ñi am ngërëmal sunu borom waaye itam njéggalal sunu borom waaye itam lu bu benn bu ñu joxe ñu jox leen fukk ñu jox leen téeméer ñu jox leen junne jox leen ba loo xam ne romb na seeni njort kon loolu euh, dañ koy jëf dañ koy delluwaat la waxaa rek ne mboolem li ñu suñu borom sant ay junj la moo xam ci jaamu yàlla gum doon rawatina julli gi nga xam ne moo dajale lépp nag bon ay junj la yoo xam ne dañoo war a fexe ba ay code la yoo xam ne dañoo war a fexe ba décoder ko pour loolu nga xamante ne moom la ñuy junj ñu ba xelu ko waaye jëfandikoo ko ci suñu doxalin suñu digganteeg suñu borom suñu digganteeg suñu bopp ak suñu digganteeg sunu morom ndeg mbir yi di gën a baax bis bu nekk te du gën a safaan ba du am mukk loolu nag la koy def mooy e, góorgóorlu tey seetlu waaye di nangoo itam naddante waaye di nangoo itam ba di tuumaal sa bopp itam di ko e, e, def xisaab maanaam di ko di ko auditer jamono bu nekk ndax ku jàpp ni mat nga comme ni ñu koy faral di waxee jamono bu nekk ku jàpp ni sus nga dootoo avancé ndax ku amul fenn fo jëm da ngay taxaw te ku taxaw doo yokku te ku yokku ñi raw la kenn yàlla def si ñi nga xamante ne ñooy juli dëgg dëgg juli ñi nga xam ne yàlla dina leen nangul ñi nga xam ne ñoom la ñaan ba da wax in kaana fiha xalalun aw naqsun min rukuuha aw sujuudiha fala tuwaqis nii wa tafaddal alayya bil qubuli wal qufran lu ci ak lu ci matut lu nekk yal na nga ko mot di te jéggal ñi boole ñi ci nga xam ne julli da leen di defar la suñu borom subhanahu wa taala doon wax naan inna salata tanha anil wal munkar te bañ a bokk ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax naan rubba bu sallin talanuhu as-salat nga xam ne dañu julli te julli di leen rëbb incha allah bu dëpp dogala borom bi ci yeneen daje danañu ñëwaat ci yenn yi de demee ni jullit mbooloo ak yeneen yi demee noonu incha allahu ñu daje bi waaye xam naa ne fan Euh, ci euh, aj màkk geeg tabaski beeg euh, yi demee noonu xam naa danañu bëral bind bi tuuti ba ca kanamat wala boobu fii ci rajo Moussaïr FM 93.2 di kàddu njabootu yonent bi di jube ci complexe imam ali alayhi salaam Zac Mbao ci technique bi soxna Khadijatu Diouf Cheikh Tidiane Diawo ca Kolda Omar Diawo ci micro bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu